yàlla na ko yàlla def euh, Mamadou Ndiaye yàlla def euh, gaynde yi jël boobee coupe comme ni ko seen i mag euh, defee barki démb ci CHAN bi ak ñi leen gën a mag mooy ñoom Sadio Mané nëgë ni daaw la woon ci février atum deux mille vingt deux li gën a fas yéene kaay ñu ànd ceeg El Hadj Assane Gueye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 48 heures. jërëjëf El Hadj Assane Gueye mbokkeen jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futur Média fii na ne ma ngeen ci xibaar yi ñu ngi leen di sant leen gërëm bàyyi leen ak El Hadj Pape Cheikh Diallo mooy seen émission Midi Plus ñu ngi leen ñaanal yéen du jàmm.